Babacar Tine loolu dafa leer final baa noonu arbitre bi sifflé na Aldemba Bargny moo la féete ndijoor Babacar Tine moo la féete càmmoñ ndeysaan bul wax loolu ba ndeysaan Babacar Tine ak Aldemba Babacar Tine Aldemba ndaysaan ñu ngi noonu Babacar Tine Aldemba Bargny Babacar Tine Aldemba ndaysaan Aldemba Bargny daw na jëli ko Babacar plaqué na ko yegg nañ suuf yegg nañ suuf mbot bañ na al est-ce que mot bi baax na Babacar Njool la jugaan nañ siggi ndaysaan ñu ngi noonu Aldemba Babacar Aldemba naan naan la ci làmb Aldemba Bargny ak Babacar Tine ndaysaan ñaari xale yaa ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan Babacar Tine ak Aldemba Bargny ña nga noonu ci combat bi arbitre bi sifflé na atte na Aldemba Bargny am na benn avertissement Aldemba Bargny Babacar Tine mënul yomb ndeysaan Babacar Tine ak Aldemba Bargny Babacar Tine Aldemba Aldemba Bargny ak Babacar Tine Babacar Tine ak Aldemba Bargny Babacar Tine ak Aldemba Bargny Babacar Tine Aldemba Bargny ña nga noonu ci compétition ba ña ngay bëre Babacar Tine Aldemba Bargny wër na ko ndombo Babacar Tine wër na ko ndombo wucci na wër ko ndombo fu ñuy mujj Babacar Tine Aldemba Babacar Tine Aldemba ndeysaan Babacar wër na ko ndombo Babacar roggante waat na ci ginnaawam combat bu nar a garaaw Aldemba Babacar Tine Babacar Tine Aldemba Babacar Tine Aldemba war na ko ndombo mu ngi koy jéem bës Aldemba daa bëgg a ci tànk ba toog ca daan na Aldemba daan na Babacar laa ilaaha illallah ee ndeysaan am na lu xew am na lu xew kee nanguwul al demba baaba gërtin